asalaamualeykum maa ngi gaaral ay kàddu ci vidéo Baye Mbaye MC bu ñu ma yónnee ma seetaan ko mu ma ci tuumaal bañ Baye Niass doon noonu pay bi ak yàq deru pay bi di woote violence ci suma kaw ne taalibe bàyyi yépp fépp fuñ ma gis neen jëflanteeg man woowut leen ci ñu jëflanteeg man ci xam-xam woowut leen ñu jëflanteeg man ci jikko ju rafet woowut leen ci ñu jëflante man ci maarifatu billaahi waaye daf leen woo ci fitna nga xam ne mooy li gën a xew may njëkk a leeral ne Médina ak njub Médina ak leer Médina ak baay bi Baay Ñas indi nga xam ne amul sant kenn du ci dugg lu mooy faroo sa askan faroo sa sant Médina googu yàllaa ko moom garantir ko boppam jox yonantu mu jox Seexu Tijaani mu jox Baay Médina googu du luy yàqu ba kenn mën koo yàq rawatina Ahmed Cissé mu xeebu mii munta yàq Medina googu ma ndey mun koo yàq suma bàyyi munu koo yàq kon tuumaal nit ne loolu la bëgg yàq rek mooy daytaluwaayal doye di ci kaw àddina ah, beneen bi ci tegu mooy man fas énetuma lu des ci suma àddina may leeral a ko wédd ndax leeral taxul mbiri leer ci nit ñi wédd taxul nit ñi setal la kon damay tàmm rek noppeek muñ doxal suma jëf ak ëllëg mu tontul ma may laajte nag taalibe yu dem ci pay ba tax xam ndax ne ndax nit mën naa xam yàlla te mu wér mu dox seeru te mu wér ba pare mu ëlbatiku doon noonu baay loolu mënta nekk waaye pay bi dañu teg ñetti saaga yoo xam ne gor rek moo ko moom benn bi bëggut baay ñaareel ba xamut yàlla ñetteel ba doomi xaraam la ñu yokk ci beneen bu soof nag mooy ne xaalis moo tax mu wax xaalis tax muy def saaga yi képp kuñ ko saagawul ci pay bi rek bokkoo ci pay bi maa ngi doon xaar ci mbay am si ni mu waatee woon ne su dee Adji Sarr waxut ko ne lii sos la yàlla bu mu dellu Medina mu taxaw ci publiquement waat ne tasewuma ak Cheikh Ahmed Cissé ci benn kër kilifa Sacré-Cœur 3 keroog mu ngi doon wuyu appel benn jigéen bu nekkoon Tanzanie am na benn taaliba bu ko fekkoon bu nekk Luxembourg dama tegal ay audio di ma wax lim ci xam ñaareel ba këram Almadi tegal na may ojo wax ma lum xam ñetteel ba point 1 la ma fekk ci suma benn kër mbokk. ci suuf la ñu dajee ci oto mu génnee earpiece am maanaam li ñuy dugal ci nopp ci téléphone airpod dugal ko ma di ma dégloo ay audio Adji Sarr na waat ne lii amut lii rek la waaye bi ma waxee ak suma kilifa mu ne ma li nga wax ci Baye mbay yedd ma dama taxaw ci publiquement ne maa ngi baalu àq Baye mbay jullit bu mat bu ñu la tooñee dana diis waaye bu ñu la ne baal ma àq te muy dëgg da ngay am mm, dangay am mët baale waaye taalibe Baye dañuy judd ci lislaam ngir yokk ànd tax ñu ànd ak Baye Niass ku ñuy woo nañu woo ci leen jàng kaay leen jub kaay leen baax waaye demleen leen tooñ dem leen duma ko ami mbokk <laughs> dëgg dëgg warul warul sëriñ waaye warul taalibe li may leral daal mooy duwaa dina Baye